te depuis suba euh, moom ak tiimam euh, tiim bi yëpp ñaari tiim yëpp def nañ liggéey loo xam ne dañu satisfay dañ kontaan si liggéey bi parce que dañ am work plan boo xam ne suñ ko toppee euh, wa dina dinaa wax ne affaire bi dina jeex waaye xeex bois bi dina jeex ak wàllu lu nekk wàllu environnement rek dinañ war a am loolu loolu yëpp so tey dama kontaan Euh, maa ngi seen <clears throat> suma team bi tam dem Dakar ñu seet naka la ñoo mën a euh, réaliser euh, work plan bi te work plan bi already is there with timelines dañ am ay time bu ñu war a def activities so ñaari team yi dañ war a seet ban time lañ war a def lan ak ñun ñaar ñaar yi su fekkee ne ñaar yi ñoo ko war a def ñu toog ñu plan ko su fekkee ne Sénégal moo ko war a def mu toog plan ko su fekkee ne Gambia moo ko war a def ñu toog plan ko su boobaa time bi suñu respecté time bi si work plan bi dinañ dinañ am li li liñ bëgg so dinaa riaso my brother ne Gambia pare nañ pour euh, gis ne suñu wàllu environnement pour ñu protect ko parce que lu sonal Gambie moo sonal Sénégal lu sonal Sénégal moo sonal Gambie exemple ren taw amut Sénégal amut taw e, béykat yi e, amu amuñ seen seen jiw bi baaxut Gambie tamit même chose so loolu wane na ne e, li xew Sénégal mun na affect na Gambie li xew Gambie mun naa affect Sénégal so ñun ñaari dañ war a jàppalante gis ne ñu toog waxtaan ñu xeex loo xam ne dina lor suñ nit ñi ak ak suñ doom yi ak suñ set yi